ci euh, vraiment recrutement effectivement effectivement président a autorisé 3700 euh, 700 euh, enseignants ñu jël ko ndax déficit bi waye mais wax ni ci trois yoyu ont déjà jël nañu parce que si éducation nationale dañuy recruter dañuy dañuy organiser concours bi xaar bu quota bi génnee ñu délibéré donc daal di affecté ci CRFP lii des moom 1200 yi 1200 yi élèves professeurs concours recrutement élèves professeurs mo leen jël donc FASTEF igb ak ñoy dañ ko organiser donc amul euh liñuy wax donc li ñuy wax euh, euh, euh, ñu jël sur présentation de dossier amul ku leen ko wax vraiment en tout cas amagul ci ci ministère bi donc nañu xaar su FASTEF ubbee concours bi ñu am bac ak ak bac plus ñu dem ñu déposer di wax aussi parents yi ndax école bi daañu ko ubbi waat euh, lundi 15 mars leen wax ni dañuy waxtaan seen doom yi parce que xale yi dañ leen jabal ci l'école yi pour ñu xam-xam pour ñu sàkku xam-xam euh, pour aussi ñu réussir seen examen wala seen composition ëllëg ñu am xam-xam bu leen mën a may may yor réew mi donc ñu waxtaan ak ñoom ba bu bu leen kenn dugal ci affaire politique bu leen kenn dugal ci ay ay ay manifestation ak nu mu mën a demee bu ñu wàccee nañ ñibbi seen kër ndax réew mi dafa dafa dafa naqari te manifestation yi ñëpp xam nañu dafa am lu ci rax ba euh, ay nit di ci di ci dee kon nag parent bu nee waxtaan sa doom ku jàng wàccite na nga dem ñibbi